xam nga li xew ci Guinée Conakry euh, man li attiré sama attention en dehors de li ñu wax yëpp mooy déclaration bi bàyyeekoo ci Doumbouya mi nga xamante ne tey moom la ñuy tuddee homme fort de Guinée Conakry mu wax ci ay baat yoo xamante ne dañ ko miin fii ci réew mi mu bëgg nag la président Macky Sall mu gën ci bàyyi xel tudd na instrumentalisation de la justice. ma joxe ci benn firnde duma ci sori sax du dugg sax ci rapport yi dox ci diggante politique yeeg jàppante yeek ñu wax fi caisse d'avance di ci tudd xalifa Sall ak euh, CREI ak Karim Meïssa Wade nga xam te lu ci ëpp moom la ñuy tudd ndax politique yi dama ci tudd boo xam doomu réew mi lañ en 2013 ay bulldozer moo leen fekk si toj seen i kër kër yoo xamante ne firnde yi wóor la ñu am ni ñoom ñoo ko moom muy kaawu waa gàddaay 253 familles yoo xamante ne dañ leen génne ca biti toj seeni kër ñu dem ci këru attekaay ba fi gën a kawe ci këru attekaay yi ci réew mi ñu daan waajooj di Babacar Babacar a ngi mu ci réew mi ba dox ay soxlaam dara ferege ñenteew ko dara xoosu ko ba léegi famille yooyu ñu ngi ci naqar depuis plus de huit boo déggee ci li nga xamante ne mooy moo bàyyeekoo ci témoignage ci mbay la muy wax jëmale ko suñu justice la muy wax jëmal ko ci avocat yi ak na mu intimidé woon gouverneur bi ba mujj la mu waxoon yépp am loolu bu dul instrumentalisation de la justice nañ ma wax lan la ba fi ma waxe yéen njaboot yaa ngi ñoon loru am na ñoo xam sax génn nañ ci àddina ñii seen seen seen daanaka àddina yàqu na ndax kër yooyu lañ yaakaaroon ba fii may waxee yoon te le président Macky Sall xam na ko xam na dossier boobu bu baax mujjul fenn ñu ci ëpp ña ko wër xam nañ dossier bi dossier baa ngi nii mujjul fenn te mun naa multiplier les exemples mu waxaat lan corruption et pauvreté endémique yéen gis na événement mars ñu bëri ci waa réew mi bi ñu génne dañu dem dajj ay Auchan génne fa ay lekk ay dund loolu di wane metti lu ci réew mi ak ñàkk gi kaw ga moom limaale wu ko tey ñu néew ci waa réew mi ñoo amee ñoo amee koppar yi ñu ci ëpp ci waa réew mi jote wuñ ca gis ngeen yokkute bi bi bi mu bi bi mu fësee jamono ji ci réew mi li mu jur ñëpp a ngi koy yëg ñëpp loolu boo ci booree nag ger gi Moustapha Cissé lu xam ngeen ko taxaw na fi ne taax yu bëri yoo xam te ñu ngi koy gis fii ci réew mi la ko indi bokk na ca blanchiment wala njaayum drogue mu ne am na ci ay firnde bu ko procureur de la république wooyee mu joxe firnde yi fan la mujj. politisation de l'administration gis nañu fii élection présidentielle suñu administration rawatina euh, suñu administration publique euh, rawatina poste ka ko jiite woon ay oto yoo xamante ne oto poste la ñu koy ñu koy campagne gis nañ ko fi gis nañ fi ay DG yoo xamante ne <laughs> daanaka euh, fulla ji ñu jox élection joxuñu ko liggéey yi leen dénk le président Macky Sall toog na fii ne euh, fii directeur généraux yeeg ministres yi ku ci ñàkk sa sa sa sa diwaan sanction dafay daf daf lay topp ma jàppoon ni la waroon ci moom mooy le président Macky Sall mooy wax ni ku ci nekk lettre mission yi ma la assigné pour que résultat mën a feeñ ci l' action ku ko ci jëmmalul ma dàq la maanaam loolu gis nañ ko fi loolu yëpp nag moo tax may alerter di wax le président Macky Sall na bàyyi xel xam ni Mali tàkk na na bàyyi xel. xam ni Burkina Faso naka noonu gis nañ ko ba ci Sahel bi tey Guinée Conakry la kon nag ci wàllu gouvernance la mu yàggoon wax ni la patrie avant la parti tey la war a gën a jëmm li mu doon wax ni fruit de la croissance war na waa réew mi yëpp jotee ci njëriñal réew mi loolu war na ci bàyyee xel te loolu lu ko ci mën a may mooy mu dañ ci lépp loo xamante ni wàllu politique la par parloo taxaw na ci soxlay askan wi yépp ba ñu yëg ko waaye nag waaye nag ca la nga xamante nag fës na ci déclaration ñetti tey réew mi di Conakry ni seeni bànqaas réew seeni chart réew dañ ko salfaane muy junju mbirum troisième mandat attention ndax loolu biñ ko fi laajee moom jiite dafa ne du ma ni waaw du ma ni déet kon nag jàpp naa ni ay leçon ak i yu mag moo génn ci mbir mi te loolu nag kenn jiituwu ci la président Macky Sall ngir mu jël ci nag matukaay yi war taxawaay bi xam ne nag njàngat la woo xamante nii moom moom war na ko cee def ak ñamu àndal ngir ne li yitteel askan wi ci loolu lañ war a taxaw su ko defee nag réew mi la mu bëgg ci réew mi mu mun koo am kon nag njàngat laa ngi nii bàyyi ko ci Guinée Conakry te réew la woo xamante ne soriwuñu